mbokk internet yi ñu leen char bu baax baax di leen wax ngeen dal jàmm sur le sport kuy gan ci page bi ñu ñaan rek nga abonné nga activé cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très très important bu leen nekk aussi di bàyyi seeni ay commentaires. baate dañ koy tàmbalee ak lii nga mooy quart de finale bu coupe du Sénégal jàpp leen bu baaxoon jaraaf mooy mujjee jaar ci kaw Casa Sport bi nga xam ne voilà mi ngi ci guddi yi bët setagul ñu ngi ci jafe-jafe ñaari bal ci dara lañ leen daan fa fecce Sadio bu Ngor. kookee di Souleymane Cissé moo fa jaar moo amal doublé voilà nag dama leen ni bàyyi ngeen xool bi nga xam ne dugal na ko bu ko defee ñu mën a wéyle xibaar yi avec une bonne ambiance de la part des Médinois. jàpp leen bu baax jowante yooyu dinañ ko wéyle sa mercredi 5 juin jamono mooy dalal foofee ci stade Massène Sène de Dakar à partir de 16h30 les académies ñooy dalal Jal Diop ñaari équipe bu cinquième division yooyu foofee ci stade Diombo Albouri Ndiaye stade Caroline Faye Mbour Petite dina dalal Teungueth FC ñaari jowante yi ma mujjee lim nag dinañ ko tàmbalee à partir de 17 Galasi la ginnaaw gi bañ ko tabaatee coach bu Lion yu bit soko bi moom kat commencé na li nga xam ne mooy ay wàccaayam bu ko defee ñu a sóobu ci prochaines séances yi nga xam ne mi mooy ko doon sooxee bi nga xam ne mooy Espagne la njëkk doxal ci catégorie ndaw yi laata muy utile foofee ci Guinée équatoriale bu ñëwee bi national nag faw nga autorisation ci noonee nag mësuñu ko jox kayit bi firndeel ne war a doxal Guinée équatoriale ci 11 ko moom mi am ne sax moo terminoon meilleur buteur karaay boobee ñu sargalee woon ko ko jàpp leen ci ñaari li ngeen mooy éliminatoire bu mondial 2026 ñu ndam jàpp leen kat koy defal léegi poñ lañuy am seen poule comme niñ ko fësale et que daanu yemul foofee ndax FIFA liñ fësal mooy que moom mel mooy Nzoué dina toog juróom benn weer yi nga xam ne du ko mën a doxal ak waa ginne laata ñuy jooyanti ay mbiram et nag ñu bàyyi Nzoué moomee ak coowam àddu ci ki nga xam ne bi en conférence de presse. seen jont bi ñu war a amal contre Luxembourg jàpp nañ ko ci mercredi bi à partir de 19h GMT foofee ci stadium Saint-Symphorien de Metz liñ fësal mooy que ñoom ngi ci wàccaay bu dem ci Europe bi moom nag mi ngi en conférence de presse ek nag ñëw na ci lu mu gën a yaa ci ay tontu jàpp leen bu baax nag mu ne ginnaaw gi ba mu fësal ne dafay kiite wala boog dafay utile ci Real de Madrid ca coow li gu la coow li juddoo nag foofee ca. pari ki nga xam ne mooy Nasser Al Khelaifi demoon na ba naka Volant nag du doxalu ci club boobee et que sax joxoon na ndigal coach yi ak kooki directeur sportif yi waaye ñooñee ñoo ko gàntu nag ndax xam Mbappé jour bu am solo ndax ñoom kat amoon nañ yaakaar ginnaaw gi kat bañ doon xuus ci joonte yi leen bu baax kon Mbappé mënoon fa ñàkk ndax waa Codis moo leen qualifié loo seen joon bu ñu contre Real Sociedad ak yeneen di jaloor yi am nako kon kooki di Luis Enrique nak dañoo wañ loxom dañoo wañ loxom mooy tax bala nak Mbappé lu ci bëri da ngeen ko gis ñu koy ci mbirum mi tang bi kookee dina sa El Khalifi kon demu Mbappé boobee neexu ko dara nga ne Mbappé jour bi nga xam ne ak dayo bi am na ko wala nag mooy quitté gratuitement xam nga ne loolee vraiment une grosse perte pour les Parisiens waaye ñoo ko teg seen bopp au moment bi waroon nañ ko libéré ñu siy laxas jaan ba xam nañ ne Mbappé kat fi mu leen doon te mooy que contrat bés bu jeexee du fa renouveler et que noonu la doxal et que nag salaire bi amal nañ ko ko mois d' avril loolee moo jur coow li nag ndax waa Paris guñ ko ko et que buñ moyul wala nag di leen topp fa mbaxana doone benn kon kuréel bi wundeegul ci Paris ginnaaw gi Mbappé ba titulaire ci Real et que sax Mbappé da doon bañ wax ndax wala occasion bii dong la mënoon am pour indi ay leeral devant taskatu xibaar yooyee comme ni nga ko wasalee kon moom il s'est senti libéré ginnaaw ba mu quitté foofee ci Paris. waaye bu ñu sukkandikoo ci relevo moom ak Paris li ñu xaati mooy que wala naataablam club boobee moo ko yor ba léegi mooy ko droit à l'image de Kylian Mbappé kon club boobee ñoo koy gérer ba léegi vraiment nag ñoom mën nañ jënd loolu ay joueurs waaye vraiment mënuñoo jaay. ndax lu mat 371 millions d'euros teg nañ ko ci table jënd ay joueurs yu mag lu ci mën Ibrahimovic Cavani wala bokk kër Thiago Silva mu dem Chelsea dafay jaloore waaye ba ñuy dem gratuitement lañu demee malheureusement pour les parisiens et que nag mercato AS Rome dañoo intéressé lool ci kenn mooy Amdy Diouf jàpp leen bu baax moom buñ mayul dina kité foofee ci lance moom mi doon am yaakaar doxo ci Zio Thierry Henry da ko zappé équipe ci ay a mun ne stade brestois ginnaaw gi kat kuréel boobe di UEFA ba mu leen gàntale ne seen stade boobee respecté wul norme yan moo leen mën a may ngeen dalal ay jonte yu Ligue des champions ci ñoo def nañ tànneef nag utali foofee ci Guingamp bu ko defee ñu mën fa dalloo seen ay match ek nag foofee ci Arabie Saoudite li gën a fa seen ay xibaar alnas nag noppee nañ teg lu mat cinquante millions d'euros fekk waa Manchester United ñu jaay leen ko kii di Bruno Fernandes kooku offside moo fas ak xibaar boobee dinañu may ñu utali foofee ci Angleterre li gën a fas seen xibaar ko kii di Jadon Sancho mu ne du ñëw benn yoon nag foofee ci Manchester United ci kaw ci kaw kii ngeen mooy Erik ten Hag mu quitté club boobee buñ soxandikoo ci Mirror ek nag Méditerranée woo ci ay xibaar mu ne Aston Villa nag dina fay benn mbaqus bu 5 millions de dollars Villarreal ci transfert bu Pau Torres bi. ginnaaw bañ qualifié ci lii nga xam ne mooy Ligue des champions pour la saison prochaine ci défenseur espagnol boobee ek toujours ci xibaaru Grama Bali mu ne Aston Villa moomee nag vala favori la ñoo gën a jekkati nag pour dalal kii nga xam ne mooy Mario Hermoso bi am na jàpp leen bu baax dafay kitaati ko match ek gratuitement mooy que agent lii bu jàpp leen utali bu buñ mayul ci Angleterre waaye du ñoom dong West Ham wala boo club bu ci mën a Newcastle ñu ngi diirante mbagg ak club bu Unai Simon boobee. mu di fee jëloo rem ci champion si beeg bi nga xam mooy Sunderland ba tax na kat mën naa ne njëkkante la jàpp leen bu baax kookee di. kooku di Job Bellingham benn moom mooy rakku Junde comme ni ma koy fàttali toujours Tottenham kat voilà bokk na ci club yi xam ne bëgg nañ ko nag waaye clubam boobee di Sunderland mi ngi laaj du mat vingt ci ku bëgg milieu offensif boobee The Guardian moo fësal xibaar boobee. benn portier australien la muy soxandikoo ci Fabrizio Romano jàpp leen bu baax mu yoo ci Alex Paulsen. kon quartier bu ñaar fukki at ak benn boobee quitté na Wellington bi nga xam ne mi ngi woon foofee ci dëkkam signé foofee ci Bournemouth ñu àddu ci dossier bu Kevin De Bruyne bi nga xam ne ñu ngi doon fësal mën na desaat benn saison foofee ci Manchester City doxal waaye bu ñu mayul kat loolee mën na bañ a antu ndax liñ fësal ci kayitu xibaar yi moom sax moo ci yéey yàbbi ndax club saoudien kat ñu ngi koy piisee bët jàpp leen bu baax moom dàqul benn yoon nag utali foofee ndax moom nee na dimbal la ci njabootam et que bi nga ne am na ko nag vraiment nag noppi na lépp mooy que voilà il est prêt tout voilà noppee naa dem foofee nag uti ay koppar ndax jàpp leen bu baax buñ ko fayee. koppar yi moom lañ ko proposé maanaam kat li mu jot a doxal ci carrière am wala boog 15 yi nga na ko loolee dina ko romb fop kon koppar yooyee takku na lool comme ni nga ko fësalee nag kon entourage am boobee ñi am ñoo ko war ñu koy jox ay conseil dàqu ñu sax mën naa ni sax mu utali foofee uti ay koppar kon xibaar boobee des na ko toppandi waaye këlëbam boobee di Man City nag ak Liverpool wala boog Arsenal ay option lañ nag bu ko defee ñu mën a dalal ko kii di bi nga xam ne bu fekkee dafay quitté Bayern Sky Germany moo fësal xibaar boobee ñu wéyale ak Manchester City ñëwaat seen ay mbir ñoom ak Girona jàpp leen bu baax léegi am nañ fa ver bu kuréel benn mooy UEFA léegi ñoom ñaar ñëpp kat bi nga xam ne buñ soxandikoo ci kër xibaar ñoo bokk ku leen moom wala boog jege nañ lool te xam ngeen ne loolee dañ ko doon aye ci noonee nag kuréel benn mooy UEFA jox na leen fa kon ñoom ñaar ñëpp dinañ mën a doxal. ci Ligue des Champions ak Girona gulet comme niñ ko fësalee ñu àddu mbir waa Leicester ñoom mere nañ lool attitude bi nga xam ne Enzo Maresca doxalee nag ni mu quitté foofee ca Leicester neexu leen dara utali utali foofee ca Chelsea comme niñ ko fësalee The Telegraph ek jàppaleen bu baax nag comme niñ koy wax mooy course bu nekk nag da ngay séntu dem fu sori waaye lañ ko waxte dee nag Chelsea ak seeni jaloore nag course bu mu dañ fa dem bu ko defee nga mën a affirmé wu rawatina ñu nekk ci ay jafe-jafe mu wóol seen mu wóol leen si génne ek bild mu ne Chelsea bokk na ci club yi intéressé nañ ci signature bu doomu français bi ma ngay doxal ca Bayern muy Dayot ek Liverpool moomee bëgg nañ indi xar kanamu bees ginnaaw gi am solo bañ ko joxee seeni ay lenk jàppale nag dañoo bëgg lool kooke di leen buy ci du dong Real aussi ñu ngi ci dossier mu ek dina ñu mayu tëli foofee ca Espagne bu ñu soxandikoo ci relevo jàpp leen Real nag dañoo am problème mu nag ci seen salle bi am ne fa lañ teg seen ay trophée actuellement nag Valla dafa fees del comme ni nga ko fasalee et que Valla nag ñenn ñi sax ñi ngi tooñ waa Tottenham bi nga xam ne bi suñoo jël Real na leen Tottenham luyee waaye lu ci mën dem Real équipe bu mag loola dem bay jël trophée kat xajuñu fa. loolee kat équipe bu mag donc moo ko mën waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kayitu xibaar yi nag kookee di Alphonso Davies amalagul déggoo ak club bi ngeen mooy Berne bi nga xam ne ñu ngi def la tout bu ko defee mu mën a wéyal ñoom ndax kookee di compagnie yitte woon na ko lool ci projet bi nga xam ne bëgg na ko sumb et que nag Real léegi nag yokk nañ koppat yi nga xam ne voilà moom lañ bëgg a fay bu ko defee voilà nag mu ñëw utali foofee ñu gën a dooleel seen équipe boobee voilà nag noppee nañ teg lu jege 50 millions d'euros et que nag ñu utali ca Barça ñoom nag ngi am njàqare ci kenn mooy Arua Xob bi am ne waxagul du jëm ci li nga xam ne mooy prolongation de contrat mu mën naa sax ñi ko wër bi nga xam ne bara ñi ngi traîner les pieds Laporta ci benn waxtaan bu yaay bi doon amal mu ne nag dàq bi nga xam ne def na ko Xavi nag voilà mooy ndogal bi nga xam ne moo gën a metti bi nga xam ne moom la jël ndax xam ngeen ne Xavi foofu lañ ko formé jàpp leen bu baax nag mu ne vraiment nag neexu lool waaye il fallait que ñu amal ko sport mu ne nag. Xavi dafa bëggoon remplacer kii mooy Robert Lewandowski bu ko defee Barça indi kii mooy Artem Dovbyk loolee ci ay bëgg-bëggam loon waaye nag dàq nañ ko ci ay kàddoom mu ne nag fonction yu Barça yi nag jàpp leen bu baax mu ne nag du xibaar bu neex dara ñuy gis Mbappé muy téere ci Real de Madrid mooy waaye nag honnêtement lay wax. moom nag stratégie bi nga am na ko nag ci ndaw yem ñu ngi leen may confiance bu ko defee ñu seen projet bi moom lañu sumb depuis et que moom sax dëggal na ko mu ne dañoo bëgg a garder kii mooy Joao Félix ak Cancelo bu ko defee kat ñu mën a wéyale koo kay di dëkku nag mu ngi ciy liggéey bu ko defee ñu mën a amal déggu ak seen ay club respectif ñu wax as lëf foofee ci Allemagne Bayern Munich noppee nañ nag déglu offre yam dinañ ko teg seen ab table képp ko bëgg a gis commande ci été bii bu ñu ci Sky Sport Deutsch. et ñu wax suñu gaynde yi ci nga xam mooy Lamine Camara nominé nañ ko voilà nag ndaw bi gën a xarañ ci saison bi foofee ci ligue naam wàcc nañ et que lien bi naa leen ko defal ci li mooy description bi allez voter massivement pour l'international sénégalais et que sax bii bi gën a taaru aussi bokk na ca ña nga xam ne aussi mën nañ ko gàdd mooy que bii bi mu dugaloon pour rappel contre Monaco. moom mi ngi waajal voilà doxal centième matcham à la tête des Lions voilà nag lii ngeen mooy bilan nag ci 99 rencontres yu mu amal kookee mooy Aliou Cissé comme sélectionneur du Sénégal booy soxnikoo ci DI Sport jàpp leen 65 victoires 21 nuls 13 défaites et que 162 buts marqués 56 encaissés et que nag ci depuis que ba mu fi ñëwee utilisé na lu mat 102 jours. et que ma rappel leen li ngeen mooy classement bu groupe B bi nga xam ne Sénégal fa la nekk pour qualifier leen mondial 2026 kon classement boobee Sénégal moo nekk ci kaw faaw ñu doon RDC pour ko defee ñu mën na sànni Caravage ndam bu am solo la jàppale Sénégal nag mooy premier avec 4 points même nombre de points que Soudan RD Congo di ñetteel avec 3 points Congo di ñeenteel avec 2 points Mauritanie ak Soudan du Sud ñooy complété classement bi ci Mondo Deportivo fësal ko MD fësal ko mu ne kii mooy Mikayil Ngor Faye voilà kontaanul dara lan mooy waral ñu yeex ko yéegal ci équipe A bi avec euh, club boobee di Barça ba tax na nag voilà dafa envisager quitter club boobee toujours bu soxnikoo ci MD jàppale nag bu fekkee offre yu mucc ayib ba woon na ci yenn ci club yi jàppale Barça mën na ko jaay comme ni mu ko wax Barça nag day hésiter entre garder ko ak jaay ko ndax dañoo bëgg ba def pré-saison bu wone boppam koo koy di Flick man ko boole ci équipe am loolee mooy seen mbébét malheureusement dañuy résilier contrat bi doxoon ci ma ak Granada bi am ñoo ko jëloon ñu abale koy club yu bari lu ci mën a Barça bi bu ci mujj mooy foofee ca Larnaca en Chypre jàppaleen bu baax nag moom ñëw na ci club boobu depuis 2021 kon il sera un agent libre. et que pour jeexal bu ñu soxandikoo ci kayitu xibaar bi mooy républicain Lorraine ñu ne kat Metz dañoo bëgg lool ki yan mooy Habib Beye et que sax mbébét boobee lañ amoon bés bu ñu desandi woon ci liga malheureusement mooy tax ñu relégué leen ek bu ñu soxandikoo ci RMC est-ce que loolu mënu remettre en cause kat ñëw technicien sénégalais boobee foofee ndax bon benn mbébét la amoon mooy mu doxal ci liggéey bi waaye yenn ci club dañ ko gàntal waaye li leer ba leer xibaar boobee des na ko toppani ndax dina wutale foofee ca Metz gars yi ñuy yemale foofee xibaar di leen jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.